studio 2 en tout cas loolu la Light TV def ak li nga xamante moom moo nekk conseil départemental des jeunes ah gannaaw ba ñu jëlee président studio 1 bi ñu ngi jàll nag si bi nga xamante moom moo nekk studio 2 bi àndandoo ak moom moo nekk le chargé de la communication sëñ bi asalaamaaleykum. waaleykum la waaw Germaine maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu képp kuy seetaan Light TV tur bi di Mouhamed Falilou Ndom euh, nekk ki nga xam ne moom mooy le chargé de la communication bu CDJ Pikine. Mouhamed euh, ñuy waaj euh, euh, événement bu extraordinaire événement bu rëy rëy rëy mu nekk inauguration li nga xamante ne moom moo nekk suñu suñu centre bi ma bëggoon s'il vous nga wax ma li nga xamante ne moom moo nekk aspect communication bi en ah, yan schéma la ñu tegagum. waaw boo waxee organisation rek di nga wax communication donc ñun suñu communication dañ ko d'abord dañ ko njëkk a fixé ci li nga xam ne moom mooy page Facebook ak page WhatsApp mais aussi bàyyiwuñ li nga xam ne moom mooy rajo yi nga xam ne dañoo nekk fii biir Pikine télé yi nga xam ne dañoo nekk aussi ci alentour Pikine nag li ko wër yëpp euh, ñoom tamit approché nañ leen waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy suñu suñu mbëbët muy inauguration bi donc lépp loo xam ne presse la rek muy écrite muy muy visu vidéo muy audio lépp loo ne euh, est-ce que mën naa xam li nga xamante ne moom moo nekk comme presse yi nga xamante ne dañ ko ciblé parce que xam nañ ñu am na ay presse yi nga xamante dañ fay nekk est-ce que mooyoo leen dem ci yeneen presse yi. waaw média yi comme niñ ko xamee médias yi nekk aux alentours de Pikine yëpp contacté nañ leen mais yi nekk biir Pikine aussi contacté nañ leen bu ci mel ni Oxygène bu ci mel ni Warxa TV bu ci mel ni Lay TV comme tey bu ci mel ni aussi Raay bi FM ñoo ñëpp boo xoolee ñoom ñëpp contacté nañ leen nañ leen donc ñoom ñëpp daal euh, nee nañ bu baax dinañ jàpp ci ci li nga xam ne moom mooy inauguration bi te ñu ñu ngi xaar aussi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fii biir Pikine te gisaguñ leen dinañ dem gis leen bu ñu mënee def partenariat ak ñoom aussi ñu def la même chose que niñ def comme yi ak yéen déjà déjà loolu c'est c'est très important parce a yegg si ne euh, moom moo nekk réseaux sociaux yi lu bari wala parfois dañuy déglu rajo lu bari naka ngeen nañ ay yeneen moyens yu ñu ci mel ni flyers yi nga xam ne moom la defar donc dinañ distribuer ay flyers mais aussi nañ taf ay ay yoo xam ne nii ku romb ci mbedd wala nga wala nga nit mun na la kaa jox wala nga romb ci mbedd liir li nga xam ne moom mooy euh, flyers bi ñu taf foofu noonu ci mbedd ñun ñun communication du ñu bàyyi dara ki kii dégloo kii seetaan ak kii kii dul seetaan ñëpp la ñuy laal bu soobee yàlla. d'accord déjà euh, loolu en tout cas c'est très important ñun ñu ngi leen di encourager bu baax a baax a baax di leen wax ni foofu la parce que presse locale bi dafa am solo ci li nga xamante ne dañ koy liggéey ci localité bi ah ça montre que ni comprendre ngeen bu baax a baax a baax li nga xam ne moom moo nekk mission wu presse bi en tout cas man aussi tamit may waxaale. képp koo xamante ne nga nekk ci biir Pikine na nga ñëw jàppale jeunes yi bul xaar jeunes yi woo la mm. ah, c'est parce que loolu moom mooy li nga xam ne dañuy yokk pikinité bi ah mm. lu ñoo la force en tout cas président ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax mm. waaye yow la ñuy bàyyiwaat encore une fois de plus nga woo li nga xamante moom mooy jeunes yi yow mi yore communication woo élus woo képp koo xamante ne mu ngi yeewoo biir Pikine waaw ñu ngi woo ñëpp ñëpp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo biir Pikine wala nga yeewoo Sénégal képp koo xam ne yaa ngi fépp rek ñu ñu lay woo ci li nga xam ne moom mooy suñu inauguration bi moo xam élu locaux nga moo xam jeune nga moo xam autorité nga fépp foo mën a yëngu rek te te li nga xam ne mooy jeunesse soxal la ñu ngi lay woo ci suñu inauguration bi parce que inauguration bi du yomb de. incha allah bu soobee yàlla. na la nar a mel kon bu dul yomb. day métti. <laughs> xool leen ko tapet la xool gis ngeen ko est-ce dafay métti mais en tout cas daal noonu lañ leen di remercier également yéen ñi nga xamante yéen a ngi seetaan euh, Live TV di leen wax rek ni ah bés bi ah, ñu ngi leen di xaar c'est le 24 février. c'est le 24 ah, euh, dellu si waatal ci information waa s'il vous plaît. waaw février à partir de 15 heures fi nga xam ne moom mooy Pikine Icotaf dend ak li nga xam ne moom mooy cinéma Awa. voilà noonu la euh, bu ñu fa yegsee dinañ fa fekk programme bu neex trop programme bu xumbute dagan en tout cas ñu ngi leen di wax ni euh, euh, programme bi ñun ñoo ko bokkoo ñu ñoo ko moom président lan ngay daanalee. waaw di daanelee di remercier ñi nga xam ne ñoo ma wóolu ba yebal ma fii muy la muy ñi ne ñooy CDJ bi parce que aussi bu ñu la wóoloo teg la fenn yónni la pour nga dem véhiculer seen information boo fa demee yoon la nga remercier leen donc di leen remercier di remercier képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan Light TV. d'accord. merci beaucoup également man tamit noonu rek laa koy defee di remercier képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Light TV di remercier li nga xamante ne moom moo nekk conseil départemental des jeunes ci wóolute ak kóllute bi nga xamante ne ni am nañ ko ci Light TV ci choix bi nga xamante ne porte nañ ko ci ñun également di ci jaaree ustan di nuyu euh, bépp presse locale bi nga xamante ne moo ngi fii ci biir Pikine di leen wax rek fi ngeen teg seen loxo foofu la noonu la dañuy jàppalante li ñoo fait la force ici c'est c'est